dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëyandoo li xew ci réew mi est-ce que askan wi yeewoo ci réew mi xam nañu ko yéenekaay gii di réew mi ko dajee xëy def ay révélation yu doy waar doy waar ci suuf si ni nga xam ne moom lañ koy caxte-caxte ndeke mbir mi du ndakaaru rek ndax boo demee ngéeñeen lu toll ci trois cent hectares yoo xam ne dañu koo dagg xàppatil ko ab entreprise espagnole ñu ne déete waaye boo demoon ki ña buur loole moo fa am nga dem Sindié kasaalika géréw ba si Bosia journal bi nee na gox yi yëpp maanaam suuf sa ñoo koy caxte-caxte kaay gii di l'info xëy di ñu xamal lan ñu kuréel gii nga xam ne mooy aar sunu suuf ñoom jóg nañu taxaw ndax nee nañu bande filao yi nga xam ne ñoo nekk géej géejiwaay nañu koy caxte-caxte loolee ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg yéen kaay gii di l'observateur ñëw ci moodu moodu yi nga xamante ni jamono jii dañoo sonn ba maara taali li ko waral mooy woppi coronavirus ji nga xam ne dafa faagaagal waa biti réew loole moo tax bari na ay moodu moodu yoo xamante ni yónneetuñu xaalis yéen kaay gii di vox populi xëy ci lu jëm ci wàllum njàng mekk njàngale mi ñaar fukki fan ak juróom moom ci weeru juin la ñu ko daal di jàpp journal bi nee ministre yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu woowu niki démb xëy nañ ci presse bi di ko leeral ana yan pexe la nas ba nag woppi coronavirus ji du am ba pare njàng mi am ci jàmm ak salaam yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom dafa xëy ne gëmul ne njàng mi ni ko ministre yi waxee ak ni ñu ko nattee noone lay demee waa Sud Quotidien ñoom dañoo jàpp ne mbir mi ak tagga téembe daf caa daal am ndax bëri na ci loo xamante ni matul ak déggoo amu ci taw yi ma ngi door ba pare li nga xamante ni mooy matukaay yu ñu war a bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi yëngatu ci lu jëm ci nag ne moom la ñu daal di mi nga xam ne war nañu ko dooraat loolee nag li mu niru maanaam mooy dox di arrière wuti ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ndax syndicaliste yi ñoom d'accorduñu si élèves ñoom pare ngir dem jàngi yéen kaay gi nee na li am ba des daal mooy njàng mekk njàngale mi ren ji xas naa gëll góose yéen kaay gi di réew mi ko di xëy ci lu jëm ci mbirum Batiplus ak coow li nga xam ne maanaam nee na sa cobbay Christian Sambra mi nga xam ne moo nekkoon directeur général ba moom daan nay tekki ndombal tànkam ana lan moo tax ana lan moo ko waral yéen a kaay gii di réew mi ko di jëm moo xëy di ko leeral yéen a kaay gii di mu ñu xam laan ñoom famille Farès ñoom nag du ñëw fas yéene porte plainte journaliste bi di Cheikh Yérim Seck libération yéen a kaay xëyal ñu si njabootug Cheikh Béthio Thioune gi nga xam ne ñooy piicoo kambaaloo ci lu jëm ci wàllum séddoo ndono yéen a kaay gi nee ne Seydina Thioune doomu Cheikh Béthio Thioune ak ñeneen ñoo xamante ni jamono ji teg nañu leen loxo dañu leen a garde à vue bu Mbuur moo doxalee lu ni mel yéen a kaay gi du source a ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr tas ko do xabaar yi laaj ko na ko kàddu yi Aïda Mbodj yëkkati yóbbu la assemblée nationale yow ak Mansour Faye ngir ngeen leeral ana lan nga ci xalaat Abdoulaye Diouf Sarr ne Aïda Mbodj am na si sañ-sañ rôle député am lay def waaye nag lu soxal lu jëm ci wàllum leeral gi loolee sax dina baax ci man ngir ma leeral askanu Sénégal yéen a kaay gi du l'observateur ak Rewmi Quotidien wax ci lu jëm ci mbiru Lamine mi nga xam ne ñoo ngi leen di jaag Mbacké di leen piicoog mbaaloo ci diwaanu bitim réew ci lu jëm ci mbirum ger yéenekaay gi nee na kenn ci avocat yi Lamine Diack yi dafa wax lu doy waar a doy waar nga xam ne ñooy àttekat yi leen di wax na leen Lamine Diack mii nekk sama ginnaaw dafa feebar amee na cancer am na jabe type 2 maanaam bu ngeen ko dugalee si kasu bi dina faatu te ab ba jamono ji li nga xamante ni moo ko dese maanaam ci àddunaam bëriwul te nag li muy sàkko mooy ngeen bàyyi ko maanaam mu faatu ci ay loxoy doomam yéenekaay gi di réew mi ko di jeex mu ñu xamal na ñu avocat yi Lamine Diack yi kay dañoo gën a dugal masata jaag ni rubba